إلى bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax rek euh, nit ki ni ngeen ko xamee rek nag ndigal li nga xamante ni sëriñ Muntaxa joxe na ko euh, jox ko sëriñ Amsatu woolu woon itam euh, ñoom sëñ Yuusu Jóob ñoom Hizbut Tarqiyyah muy loo xamante ni da ko sas mboolem murit yi képp buñ ne ëllu xasida nag képp kuy murit da caa bokk kon nag loolu moom di suñu yëfi bopp loolu nag ñun ñi nga xamante ni ñooy man xaajulu suluk nekk fii ci Touba Sweden nekk ci jasporaa bi eh, ñu bañ cee des gannaaw ndax kenn ku ci nekk xam na ni murit bu nekk fu mu nekk rek foofa Touba la ca moom ba tax na nag woote nañ ko fii nu noonu itam fas yéene ko màggal na nga xamante ni noonu la ko sëñ bi diglee eh, ni ko eh, Baye Alioune doon waxe keroog rek nag su sëriñ bi wootee moom képp koo xamante ni leneen loo mën di def lu dul wuy sëriñ bi wuy sëriñ bee ko gën kon nag noo ngi ci woo ñëpp rawatina ñi nga xamante ni nag ñoo féetewu fii ci Sweden dinoon ko defee kër sëñ Xaadim Mbay bu soobee yàlla màggal ko ci ni ko sëñ bi santaane kon nag uh, ñoo ngi ci woo ñëpp te di ñaan rek nag uh, sunu borom defal ñu ci tawféex ba kër sëriñ Touba gi nga xamante ni ñoo ngi koy naal su lii jàllee lépp jàppandi ci waaw kon nag ñoo ngi ci woowaat ñëpp jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah vi på Dahirah man hade Bylugstrup, Tuva, Sweden. Vi ska ha en stor sammankomst nu i e 11 augusti, inshallah. Vi har fått ett godkännande av vårt Halifatul Ham, Sheikh Mohammed Muttahal Bashir Bakke, Halifatul Ham och genom Sheikh Hamshatu Bakke, Ibn Sheikh Shaibu Bakke, Jalibatul Maraqib i Tuba. Vi ska ha ett stor högläsning av Hasaid samt kurel här Stockholm. Vi på Dahira man Hadduluxluk, Tuba, Sweden. Vi ska säga till alla är välkomna och delar vi på vårt högtiden med alla och alla känner sig att de som befinner sig i Tuba gör detta. Vi kommer också göra det som precis vårt halifa behövs. Assalamu alaikum wa As you know, Sheikh Muntaha Mbake has ordered that to Sheikh Amzat Mbake and uh, Sirin Yusu Job Esbitarkhia and all the murid that we gather uh, one day, uh, which will be a Hasid day, and that day is uh, holding on 11 of August. So it will be one the first first day of Muharram. We here in Tuba, Sweden, uh, Daira Manhajul Suluk, we will be doing that and we will, will be uh, holding that day here in Sweden. Uh, and we are in the uh, in outside but as you know every every murid from every murid wherever you are is tuba for you so we call everybody especially the people here in Sweden, to come with us and make that journey that, that journey possible here and uh, we will be doing that in uh, Hadim's house uh, Hadim's uh, Hadim by Hadim by house so we call everybody and we hope that that day uh, everybody will be there and we pray that God after that will be on our side and uh, make possible the uh, Sheikh Ahmad Bamba's house that we want to build here. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إلى الكتاب والحديث سلفا